ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës ñi bi féete gannaaw ca kaso ba ca sa ñoom. Euh, ñu ne nag ña nga doon euh, xiifal li ko waral ñu ne bokk na nag ci téegu yàgg euh, ga ñu leen téye te ba nëgë ni nag kenn acté wu leen jëwriñ ji dénk wàllu yoon di Ismaïla Madior Fall moom yëkkati na ay kàddu ci wàllu woowee la mu xam le nag mooy jamono jee dañu doon rek nemmeeku ak saytu boobeep kaso lépp luy portable mbaa jumtukaay ñu nangu ko nag ca ñooñee caabi féete gannaaw ñu njort ni moo waral seen mer waaye nag jamono ñiy wax ak kon ab dal am na fa procès bu imam Ndaw daañu ci àddu itam ndax ñu ngi koy wéyal ca tribunal déglu bi tamit di wéy euh, ci ñooñe nag ñu njort ni laalee nañu ak wàllug terrorisme ca kanam tuuti euh, dinañ jokkoo ak Pape Fakha euh, Ngingue ña féetee ca lycée technique personnel ba nga xamante ne ñoom ñoo nekk sax laay wax ci université Assane Seck di personnel technique ba ñoom nag mer nañu lool sax ba door ab grève banque seen waxoo ci liggéey ba diirug ñaari fan lay doon la ñuy sàkku nag mooy jëriñ di dénk njàng mu kawe mi la mu diggee woon nag mu daal di koy rek sàmm ndax ñi ngi ci jafe te ba nëga ni kenn gestu leen ñii di ndongo yi nag wane seenu naqar ci grève yu tar ñu nemmeeku euh, ci euh, Sénégal ña féetee ca lycée bu Mbao ak Bambey euh, doon nañ wane seen bopp Bambey googee sax ki nga xamante ne nag ñoom ñooy jàngalekat yi fare ci CELS mer na lool ki nga xamante ni moom mooy Souleymane Diallo di seenub njiit ndax ne nañ na mu doxalee ñoom ànduñu ci bu fekkente ne moom dafa taxaw rek ci grève ba ñu namoon a sóobu ñu teggandiku ci suuf ñoom duñu ko def tey ñu ko def ëllëg ndax daanu koo weer wéyal tey nag la ñu gën a bokk nee nañ jàmmarloo gu tar nag ñu gis ni doxoon na ci diggante dakk der ya ak askan wa yeewoo ca Sendou gannaaw nag ab projet boo xamante ni jëm na ci wàllu mine foofee askan wa fay yeewoon nag ne seen i tool euh, lanu nangu te loolee ko euh, seetaan xibaar yi bi ci réew yi ki ñu naan nag Vincent Bolloré fi ne nii ma nga ca garda wi euh, fële la ca Paris li ko waral nee nañ wàllug ko da ca laale loole nag soxal port yu Conakry ak Lomé lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram xibaar yi jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak ñi caabi féete gannaaw ca kaso bu Thiès ñu daal di dooroon ab xiifal ñoom ñooñee nag ñu ne li ko waral bokk na nag ci téegu yàgg leen téye te ba nëgë nag kenn àttee leen jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon àdduna nag ci loolee moom la mu xamle rek mooy jamono jële nag dañu doon rek di saytu ak xoolaat boobee uh, kaso ndax lépp lu doon jumtukaay moo xam téléphone wala bokk loo xamante ne nii nañu ko dañu ko nangu ñu jot nag ne moom moo waraloon uh, seenub Euh, xi mer bay euh, xiifal waaye jamono ji ñuy wax ak yéen nag euh, kon daal ab dal am na ca jàpp na ne nag foofee ca kaso boobee lépp loo xamante ne ni ab tëralin la ñu sàmmonteeg moom ci kaso yi gis nañu nag lépp kon sàmm nañu ko foofee ñu jàpp nag ne kon ña nga ci daal anam yoo xamante ne nag kenn mënu ko ŋàññi ndax booy xool sax kaso boobee la fa nekk ci prisonnier taxu ko takku lool la ñu daal wax nag ci procès bu Imam Ndaw bi nga xamante ne nag ma ngay wéy Pape ñi ko ci biir xibaar yi laata ñuy jeexal dinañ ciy dellusiwaat ca boobepp atte euh, ñu dem ba fële ca université Assane Seck euh, ba nekk ca diwaanu euh, Ziguinchor ñi nag di personnel ba fare ci wàllu technique ba ñoom nag soobu nañu ci ab grève banque seen yoxoo ci liggéey ba la ñu def diiruk ñaari fan nee na nag jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mu kawe mi na daal di rek sàmm diggé ya ña nga cay jafe-jafe te ba nëg ne nag kenn gesuwu leen ñu teewlu ki nga njaay ci micro Boubacar si dañoo jote woon waxtaan ak euh, kilifa gi ñu def ci lëlu ñetti fan ñi wax ci lëlu bi ni dañu war a saytuwaat. université yu bees juddu nañ ci waaye ñooñu boolewuñu leen ci dox boobu te ñu fay liggéey liggéey bu ñu def benn la gis ni nuñ leen téye nuñ leen tawal nuñ leen taxawalee dafa wute te ñuy ni waxtaan war na am ngax ñu yemaleen ñoom ñëpp dañu bëgg a ñëpp yem si nit ñi dañoo gis ni ñu bokk liggéey boobu yëpp seen payoor yemul te dafa warul li ñu yebee caractuteurs yi dañ koy won rek lu sañ def ci li ñuy xaar parce que li ñuy liggéey xam nañ du liggéey bu waaye dafa war a xam ni sooy liggéey ak say ñoom ñoo xam yaa leen bokk dëkk bi yaa leen bokk atte bi fu ñu jaar moom jaar na fa xam na nu muy doxee kon ñun jóguñu tey pour ne rek saafara ko tey tey mais nga oo ñi mu wax ñu li leen ci waxtaanoon lii moo ci taxaw mais nga wax ak ñun nga ko ginnaaw ko waaw ba unhu nga dem toog loolu dafa loo xam ne dafa jëmul xel dafa dafa dafa dafa warul si dara su ñu déggalul nag su déggul luñ ko wax nag su gisul luñ ko wax fu mu jëm nag nañ ko won ci anam ñu gën a fës ndongo yi ci Sénégal nag ñu ngay wéy di wane rek seenub ñàkk ànd ak uh, grève yi nga xamante ne ni nemmeeku nañu ko lool uh, ci syndicat uh, jàngalekat yi bi yoon nag ñu féete ca lycée yu Mbaaw ak Bambey ñoo wàccoon ca mbedd ma rek di ñaxtu ñi seen i morom la ñu bëgg nag mooy daal ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngalekat yi ñu dellu ci classe yi ndax boo xoolee lu soxal wàllu crise bi ñoom ñoo cay gën a loru dinañ ci dellusiwaat du ñàkk ak sunu naataango ba ñu teewal foofee la ñuy des ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo far ak Souleymane jàlloo ci wàllu njàng meek njàngale mi ñoom nag nee ñu ànduñu ak na mu doxalee moom Souleymane Diallo bu fekkante ne dafa taxaw nag ngir ñu tegandi euh, grève bi ci suuf ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax tey la ñu koy gën a euh, wéyal euh, kon moo d'ordre boobu ñoom duñu ko yëkkati benn yoon muy nag section bu sels bu Bambey ni mu ko waxee ña ngay xam xamle nag ne tey jii la ñu gën a bokk ci kuréel googe ñu duppee G6 dañ ci ànd ak Babacar Diouf ci ndaje mu mag mi ñu amaloon ci école maternelle bi ci gannaaw raay kenn waxut wax bu jëm feneen ñoom ñëpp benn wax bi lañ wax dañuy des ci xeex bi te nag ñaaw lu nañ bu baax li nga xam ne moom la seen secrétaire général national bi def ñi ci jiitu sax mooy ñiy farandoog moom bokk syndicat bi. ndax li xew barki demb ak demb loolu naqari ñu ñu ko faj suñu syndicat. le syndicat des enseignants libres du Sénégal SELS décision solitaire bi mu jël amul mandat boobu moo tax ñun dañoo toog suñu kanamu télé di dégg suñu secteur général national muy jël décision décision boobu ñun waa Bambey ànduñu ci ñu ngi ci G6 dinañu xeex. ba am victoire finale. li ci gën a doy waar sax ñoom ñi nekk ci Bambey dañoo ñaan seen yeneen morom yi nekk ci yeneen département yi ñu des ci G6 te wéyal xeex bi. ñu ngi interpeller nag tous les responsables du CELS toutes les sections toutes les cinquante sections du CELS ñoom nañu mobiliser pour sauver syndicat bi parce que suñ ko deful syndicat bi dina toj te waruñu ko yàq c'est un patrimoine national qui doit être préservé donc fi mu nekk nii ñu xeex ñu ngi préparer la marche de Diourbel gouvernement bi dina reculer menace du tax ñu reculer Serigne Mbaye Thiam du tax ñu reculer moom ci boppam dafa war a démissionner parce que moo yàq njàngale mi. yi mel ni ñoom fi mu nekk nii dogu nañu ne daal dañuy xeex ak ministre de l'éducation bi fi nekk te tamit boole ci kii di secrétaire général national bi di Souleymane jàlloo mi nga xam ne dañoo njort ne da leen a jaay. ñu wax nag ci syndicat bi nga xamante ni moom moo njaboote ñuy jàngale euh, ci kàllaamay euh, arab ñoom nag ne nañ lu soxal euh, tamit seenub grève boobe rek ña nga ca dellu gannaaw gannaaw nag jano bi nga xamante ni def nañu ko ak taskatu xabaar yi ndax jot nañu sax waxtaan ak seeni ñooñ ñu teewlu Moustapha Segnane kenn la ci jàngalekat yooyu ci micro saliso Sow Asmalik favorable woon pour euh, suspendre le mode de grève euh, ñu kon ñu conditionné ko ci euh, ne li ñuy tuddee les lenteurs administratives mooy dossier wu enseignants yi nekk fonction publique ñu gaaw taxawal guichet unique bi ba vraiment la fa nekk ci stock ñu ñu jëm ko épuiser beneen bi mooy ñu fexe ba syndicat yi wuyu demand bi nga xam ne la xalif la xalif général des Tidiane aussi defoon na ko ci syndicat yi te joxoon ñu rendez démb ci ngoon ñu waroon daje ji ak moom pour jox ko suñu suñu position euh, suñu mbetteel rek moo di ne bi ñu amee ñeenti syndicat yu bëgg loolu am na ñaari syndicat yoo xam ne dañ ne dañuy continuer xeex bi parce que ñoom li ñu li bëgg amuñu ko euh, position bi nga xam ne moom la suñu syndicat am CNLS FC mooy dañu gis ne point yi nga xam ne moom lañ doon yëngatu di biir mu ci bi ñu doon def ba àgg sixième plan d'action ba àgg yooyu état def nañ ci ay jéego Euh, jëwriñ di dénk wàllu njàng mi ak euh, njàngale mi nag euh, dana amal ab ndaje loole nag ca kanam tuuti lay doon ndaje moomee nag ñu fas yéene ko rek def fa nga xamante ni moom mooy inspection d'académie bu Dakar lañ ci jublu nag moom mooy waxtaane li nga xamante ne nii tënk nañu ko ci xoolaat nag calendrier bi naka la fas yéene tëddee ci atum 2017 jàpp 2018 ñu jàpp ne nag ndaje mi mi ngi am rek gannaaw ñaari fan yoo xamante ne nii nag syndicat jàngalekat yi ñoom wax nañu ni euh, li ñu naroon def muy banque seen yoxo ci liggéey bi euh, daañu ci dellu euh, gannaaw ba fileeg nag ñuy daal rek am saafara ci seen i jafe-jafe dinañ ci delsiwaat itam ca séndu ab jàmmarloo gu tar moo fa amoon ci diggante takk der ak askan wa fay yeewoo ndax dafa am ab projet boo xamante ne nii jëm na nag ci wàllug port mine loola nag moo merloo askan woowee ndax ñu bari nee nañ tey seen i tool nag la ñu nangu ngir projet boobee ñoom nag duñu ko nangu ak Ousseynou Thiam. bëccëg gi tàngoon na lool ci ñi nga xam ne ni ñooñu moom amoon ay tool fi nga xam ne ni fa la ñu war a tabax lii di port minéralier et vraquier bu Sendou ak ñii di takk der yi wow askan nag ñoom li ñu bëgg mooy ñu ndàmpal leen gannaaw ba jëlee seen tool. tey donc pour bañ li nga xam ne waxoon nañu ko ak autorité yi parce que waxoon nañu ne du ñu nangu mukk ñu defaat beneen activité ci site bi te fayuñu les populations impactées. suñu d' accord woon ñu def terrassement bi mu ñu defee terrassement bi avant ñuy def leneen nañu fay ni nga xam ne ñoo doon pour seen ñax fii mais euh, à notre grande surprise démb dañu ñëw def visite de terrain ñu gis nañ commencé nañu miir bi comme ni nga ko gisee donc si la ñu defee rapidement woote si rajo yi ñëpp wuyu sañu donc wuyu sa bi nag moo indi lii commissaire man ñu àgg atteindre suñu objectif buy muy muy woon ñu arrêté travaux yi. maire ba futt lool ci li nga xam ne lii am na nag ñoom nee nañ dinañ arrêté li nga xam ne lii moom moo jëm ci liggéeyub terrassement barab boobu. li ñu nar a def mooy arrêté travaux yi décision boobu la ñu jël moom la ñu wax te travaux yi dañ ko arrêté ba ñu commencé la ñu commissaire bi wax ne du ñu yegg si fii mais fexe nañ ba yegg si fii gis njël mais ñun objectif bi ñun wax ne moom la ñu fixé wu mooy ñu arrêté travaux yi lu mu ñu jaral ñu bàyyi suñu bakkan wax nañ lii la ñu dese desewuñu leneen bam ñu jël nañu lépp central baa ngi nale pôle baa ngi nale HLM bi desewuñu fi dara deful desewuñu dara liñ ñu waxoon tëm si wàllu emploi yi ne bu ñu commencé dinañ ko def defuñu nee nañu woon nañ fexe mur de clôture bi ñu jéem ko jox doomu bari defuñu ko gis nañ ne keneen lañ ko jox non état bi faalewuñu gis nañ loolu bar ñi moom faalewuñu ko si dara. gannaaw seen manifestation bi nga xam ne ni police da koo dakkal wow askan daje ci collectif nag ne dinañu amal yeneen xeetu xeex nag ngir fexe rek ñu jox leen li nga xam ne lii moom mooy seen i ndàmpaay. jaajëfal ko Seynou Thiam ñu dem ba fële ca toitekaay ba niñ ko waxee sànq ci ponk yi fekk ji fa Pafara ñing mu ñeel na kàtteeb Imaam Ndaw na muy wéyee foofe ca ba Pafara nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou Kiné. Euh, Pape Fara euh, mu mel ni kon déglu ga ma ngay wéy ñeel ñooñe nag ñu njort ni laale nañu ak wàllug euh, terrorisme tey ndax mën nga dellusiwaat rek ci tënk li nga xamante ne jot nañ ko fa nemmeeku. tey nag moom mooy fukkeelu bés bi nga xam ne ci procès imam ndaw nag ñu ngi àtte tey nag ki taxaw di Ibrahima Ndiaye nekk ñaar fukk ak ñaareelu accusé bi ki nga xam ne moom la ñuy wax nag ci wàllu financement ak apologie du terrorisme. moom mi nga xam ne nag moo nekk Ibrahima Ndiaye mu nga bàyyeeku ca diwaanu Touba ah, fa la dëkk tey nag liñ ci gën a waxtaanee moom moo nekk diggante ma kii di Mohamed Ndiaye Mohamed njaay nag moom danoo jàpp ne moo jiite cellule terroriste bi nekk fële ci diwaanu Mauritanie te moom sax demoon na fële ca Boko Haram ba daal di dellu si naka noonu waaye moom Ibrahima Ndiaye daal dafa weddi lépp jàpp na diggante xaritoo la ñu am te moom musta taxaw na day dem fële ca libi moo tax ki nga xam ne nag moo nekk procureur bi di Ali Siré Ndiaye ne ko ah, ñeent fukki junni yooyu nga xam ne jëloon nañ ko ngir nga mën dem fële euh, ca diwaanu Libi mu ne loolu amul parce que moom liggéeyu maçon la dem am te amoon na boo xam ne mu ngi toll ci quatre cent mille ouvriers ci koppar yooyu nag kon du am loolu daal di koy bàyyi amuy soxna ak tamit lu toll ci juróom ñetti ci ay doom waaye tamit kii di Moussa mbay laaj nañ ko ndax Moussa mbay moom ba mu demee fa la nga xam ne moo nekk ca Nigéria ba léegi dellu siwul xamuñ tamit ci lu mu nekk moom mi nga xam ne nag moo nekk Ibrahima Ndiaye euh, PV d'enquête bi ñu jël lépp la laa di weddi naka noonu bi mu jànnoog juge bi di Samba Sall tamit liñ ci wax yu ci bëri daal moom yu ci nee na moom du jihadiste te sa xam li nu mel ki nga xam ne nag moo nekk juge bi Samba dellu si ci yu bëree bari di ko laaj waaye moom tamit euh, fi mu positionné rek la taxaw moom nekkul lii di jihadiste xam ne Imaam Ndaw mosu ko jox loxo nag nag ci atum 2003 la demoon la ci kaw Kaolack euh, gis ko gannaaw ba nga xam ne nag moom mu ngi dem jiite juma waaye jox ko woon loxo ci mbir yooyu daal ci lañ nekk tey moom moo taxaw ci kanamu juge bi di wax li nga xam ne moom moo nekk layu laaj nañ ko tamit ci diggante Mouhamed Diadiou ak ñeneen ñi nga xam ne euh, jàppandoon nañ leen waaye moom leeral na ne ñii ñëpp jàppandoo ñu ne moom ndax ñii dañ leen jàpp indi leen moom ñu ngi ko jàpp nag moom kenn daal di koy indi te mu ngi ndëkkoon nag ca Lac Rose nag jàpp nañ la fa la lépp doon xewee ci moom nee na atum 2009 2014 la fa dëkkoon waaye ñi nga xam na ñiy waxe nii ñëpp moom laala wu ci taqewu ci ci mbirum terrorisme ñu lay jaajëfal bu uh, baax a baax nga wéy rek uh, kon di ñu toppal uh, atte boobu atteb imam Ndao foofee ca ëttu attekaay ba wax nga ko déglu gën nag ma ngay wéy ci ñooñee ñu joxtu ni laale nañu ak wàllug terrorisme xibaar yi ñu wéyal ko dem ba fële ca diwaanu Fatick lopp nag téeméer ci bàyyi ma jot nañu leen ñàkk nag ci lu koppar génnul ña ko am le nag ñu ko amal laay wax sax rafet la ko bu baax a baax bokk na nag ci ay jur yoo xamante ne nii niñ ko waxee ay xar fas ba ci nag ay mbaam ñàkk nañu leen ndax lañu ñu seetlu foofee jur ga lu ca bari nag dañuy faral di feebar te duñu am nag ñu leen taxaw muy nag vétérinaire ya ba ci ñooñee nag amal opération boobu nee nañ jur gi dañ leen a wën war a gën di aar ndax bokk nañu ci ñuy soqali am réew Abdourahmane Diallo lañ ci àndal ci leeral ay xar ay béy ay mbaam sëf ak ay fas xeetu mala yi li la ñu dajale woon ci pass yi loolu rek ngir ñu vacciner leen ñi def li li ñu bëgg rek mooy taxawu mala yooyu. on est là aujourd'hui à Passy mais je tiens quand même à préciser qu'on était là dans la région de Fatick depuis le 11 mars. le 11 mars ba léegi ñu ngi fii ci Fatick sunu école bi ak yenn kuréel ñoom ñoo fi nekk ngir mën a taxawu ñi nga xam ni ñoom ñooy borom mala yi waaye tamit ñu taxawu yi ci feebar yi nga xam ne yooyu moo leen di sonal ab stage nga xam xam ne lu ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ni askan wi dinañ leen mën a taxawu ci anam yu gën. pour les aider dans le suivi sanitaire. ci bërëb boobu nag maanaam Passy ak li ko wër mala yi taxawaay bu am solo la ñu am ci gox bi waaye saa su ne nag ay feebar moo leen di sonal. jàngoro yi dañ koy xayma par parce que bu ñu demee ci xar yi ak bëy Euh, ñu ngi ci gën a seetlu mooy mooy somto somto mooy jàngoro boo xam ne sànn la boo xam ne day naan seen deret loolooy tax du ñu duñu du ñu rëy du am yaram euh, seetlu nañ également malnutrition ñàkk toppatoo ci borom jur yi bon ci fas yi aussi gis nañ ci feebar bu xaw a bëri fii tuuti muy góoram gis nañ ne feebar la boo xam ne day xaw a day mel ni lu soj. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo moom mala yi di rafetlu anam bi nga xamee ni noonu la ñu indee seeni mala ñu vacciné leen te feeyu ñu ci dërëm. moom kay sant yàlla ak kontaante loolu moom yëg ko ndax depuis démb ba léegi ñu ngi ci affaire bi di ko toppatoo ñun ñëpp démb ba tey nag ñu ngi yëngu-yëngu ci affaire yi ñàkk bi di defar rek ba mu baax ndax ñu itam kontaan rek moo ñu jàpp fi mu nekk nii ñàkk bi gis nañ ci suñu bopp ñun ñëpp gis nañ ci suñu bopp. ay mala yu bari nag la ñu jot a vacciné ci bërëb boobu mu doon mbir mi nga xam ni kilifa yi nank gox bi rafetlu taxawaay ñu sumb li ni mel. Euh, jëwriñ ji ñu dénk ndox mi ma nga woon fële ca mbaan jiite fa nag ab euh, ndaje ci wàllu politique la waaye nag askan wa ñoom jot nañu ko rek yeggee jafe-jafe ñuy jàngonteel bokk na ci ñàkkum ndox jëwriñ ji nag dalal na seenub xel nee na nag fii ak euh, at jafe yi nga xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku ci wàllu ndox ci Sénégal wërngal këpp loole dana jeex laata ñuy amal forom bu mag bi nga xamante ni ci wàllu ndox la ay réew yi àdduna fas yéene tase ci Ndakaaru ñu teewlu Mansour fay ci micro Ousseynou Diop Habib Seck maanaam lu président def depuis 2012 ba 2017 bii 2018 bi ñu nekk maanaam ëpp na par at lu fi amoon depuis indépendance ba léegi donc loolu dafa nekk lu am solo mais liggéey liggéey yàlla rek mooy mot liggéey suñu borom dong mooy mat liggéey doomu aadama du mat da ngay jéem a di avancé di jéem a di progresser ba suñu borom di ko mottali te ci loolu bu soobee suñu borom lii nga xam ne muy mbébét ci forage ci wàllum ndox ci lu ñu mën dégg fii ci daal daañu dem suñu ként lay kattan daa ñu fexe ci ndigal président de la République ak aussi population bi askan bii jafe-jafe ñu am ci yenn gox yi ci wàllum ndox ñu fexe ci programme boobu ñu dugal ko ci ba nga xam ne ndox dootu amati problème dañu bëgg at Sénégal dootu amati problème ndax ñetti at parce que Sénégal day accueillir lu ñuy wax forum mondial de l'eau te bu boobaa dañu bëgg nii ñun kat am na défi ndox mi relevé nañ ko te dootoo dugg gox ci Sénégal foo xam ni nit ñi daañu doxee ay kilomètres te duñu am ndox dañu bëgg ndox mi nekk ci buntu kër yi wala nekk ci biir kër yi nekk ci biir douche kër yi nit ñi dootuñu am de problème yooyu te kooku président loolu la bëgg ci yoon yooyu la ñuy teg bu soobee suñu borom bu nekkee suñu borom daañu fexe ba yegg ci résultat bi Euh, ca cees ñi ñuy woy nag euh, personne du troisième âge muy nag ñi làkk juróom-benn fukki at euh, jëm kaw te fare nag ci parti bu réew mi ñoom joxante nañu loxo rek ngir nag yë gën a yëkkati parti ba ca diwaanu cees ndax lañu bëgg rek mooy am ndam ci woteeg falug njiitu réew mi ci atum 2019 ñoom ñooñe nag ñu ne faaw nag ñu gën a dooleel parti bi ndax ci seen gis-gis sa Seck mooy nag ki gën a am doole ci ku jëkk politique gi Cheikh Anta Diop Sey la te ab résolution bataaxal bu ñu liir ci kalamu ñi nga xamante ne nee nañ ñoom ñooy magi parti bii di réew mi di ay mag yoo xamante ne seen at toll na ci juróom-ñetti fukki at jëm kaw amaloon assemblée générale fii ci Cyber Campus magi parti bii de nee nañ dañu fas yéene ñaax askan wi rawatina militant réew mi nekk fii ci diwaanu Thiès ñuy waajal élection présidentielle yi di ñëw. dañoo jub élection 2019 dañu bëgg ci ndam lu leer nañ suñu suñu suñu président Idriss donc dañuy daje dañuy woo nit ñi pour animer parti bi remobiliser troupe bi pour ñu dem à la base reconquérir lañu ñu fi ñàkkoon. kii nga xamante ni moom mooy secrétaire national mu gis ne magi parti bi waruñoo des ginnaaw te it fas ne nañ ñaax ndaw ñi ñu mën a dem bindu ji ci liste électorale yi. mbind bi ñoo ngi bind bu baax a baax a baax bu baax a baax a boo ñëwee boo ñëwee au niveau de la de la mairie ñoo ngi koy délivrer ay certificat de euh, résidence pour tout le monde nag sans exception xeetuñu kii fii la farme fii la boo gisee loolu rek nga xam ne ah y' a engouement xale yi ñoo ngi bindu bu baax a baax a baax. ñun ñoo porté combat bi parce que nous sommes des combattants aguerris ñun combat la ñu xam depuis depuis Boubacar Sall. depuis colonial. waaw je peux dire depuis la colonial ba Boubacar Sall ni mu tenir tête fii yeneen président yi fi jaar bon mag ñu fi bàyyi woon ñoo ñoo ŋànk réew mi ñoo ngi ni taxaw. te gis nga ma ngi tey salle bi nu mu feese assemblée générale boo xamante ni daanaka ñetti waxtu magi pàtti réew mi ñëpp toog ñoom sax biral nañ ne seen at yi ñu am du tax ñu bañ a yëngu ci wàllu politique te daañu wàcc ci terrain Euh, ñu dellu ci bëj gànnaaru réew mi ak xalif bu njàndaan mi sàkku nag ci waay politique yi ñu daal di rek kon joxante loxo te bàyyi nag ŋàññante bi ndax ŋàññante bi baaxul jëmalewul réew mi fenn Serigne Abdourahmane Gueye kàddu yi nag mi ngi ko yëkkati rek ci gàmm ba ñu amaloon foofu muy gàmmub dëkk ba waaye meer ba tamit ci jëmi boppam di El Hadj Malick moom it xalaat na ni faawu joxante loxo am bu fekkente ne bëgg nañu ndamal Macky Sall Ousseynou Diop jamono jii ñu nemmeeku lu jëm ci wàllu ay jafe-jafe di am ci diggante way politique yi ci cérémonie officielle bi ñu doon amal ci gàmmu Njandaan Serigne Abdourahmane Niane di xalif général bi xamle ni ñi nga xamante way politique yi dañu war a nekk benn. jàppoo ànd nekk benn gis nga bu nu àndee nekk benn sunu lépp dafay jàppati mais bu ñu dee xëccoo ak di xeex rek wala tanaza'u fa tafshalu yàlla dafa wax ne bu ngeen xëccoo rek ngeen échec moo tax dajale moo gën. teqale gis nga xam nga lañ set lu mu fekkee daf koy xotti waaye puso lu mu fekkee daf koy ñawal kàddu yooyu nag way politique yi dégg nañ ko meeru Njanaan ni daañu gën a dox ci lu jëm ci liggéey bi ngir nag ñëpp ñi nga xamante ni ci APR la ñu ne mën a nekk benn ci département bi. ñun ñëpp nañu jàppoo nekk benn jàppale président de la république parce que lu mu def ci Sénégal yombul président mën ko def kon boog suñu warugar rawatina ñun waaw département de Podor dañ ko war a gën a jàppale te jàppale bi mu ngi commencé ci bennoo nekk benn. Njanaan ci atum jamono ji nag am ay liggéey yoo xamante ni sumb nañ ko bokk na ci taxawal bërëb boo xamante ni fa la nit ñi di féexloo poste de santé bu yees ak stade loolee lépp war a toll ci ñetti téeméer ci ay millions waaw dina am de santé bu méngoog jamono loolu ministre de la santé moo ko décidé def ko fi parce que ñëwoon na fi ñëwati fi gis fii nu mu mel gis population bi nañu taxawee gis poste bi fi nee nu mu mel màggat nga xamante ni daanaka baaxatul mu décidé may nu ko euh, stade bi comme Yaya Abdoul Kane moom moo nu ko may comme nu mu koy defee ci kay yeneen communes yi ci Sénégal gépp loolu doléance su population ñendaan ñi la woon parce que ñendaan 78 pour cent population bi ay xale ci cérémonie officielle bi lee nag kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ngir way politique yi nekk benn ñëpp rafetlu nañ ko jàppani Sénégal dañu war a xàccandoo di dóorandoo te bàyyi xiroo beeg ŋaayoo bi ñu dem nag ba fële ca Kaolack wax rek ca la ñuy màggal muy nag euh, téeméeri at yi nga xamante ne nii euh, commune bu Kaolack am na ko dooree ko euh, ca Ibrahima Seydou Ndaw ba ci Mariama Sarr ay exposition ak lu ne nag amal nañ ko foofee ngir rek gën a daal di jëmmal kon taarixu commune boobee équipe bu far ak mairie bi nag daal ni yëkkati rek ay kàddu ngir nag daal di fësal bilan bi nga xamante ni maire ba fa nekk jamono ji amal na ko ñu teewlu docteur Abdourahmane Diallo moom lañu toftal ca maire bu commune bu euh, Fatick ci micro Birama Diame. par exemple tey su fekkente ne da ngaa jël ci lu mel ni ci mbalit li fi madame le maire di liggéey actuellement defe naa ne euh, euh, suñ demee fii ak un an deux ans dinañ xam bu baax porte bi parce que ni ñu organiser loolu mooy dañuy def ay zone yoo xam ni dañ fay dajale mbalit yi. dañ koy tabax clôturer ko ba nga xam ni day am un bâtiment administratif am ñu fay liggéeyee mbalit yi foofu lañ koy dajale suñ ko fa dajalee ay oto ñëw jël ko fa yóbbu ko ci centre de transfi euh, centre d'enfouissement technique bi suñ ko fa yóbboo loolu moom ñëpp xam nañ ne dañuy wax ne mbalit or bu ñuul la am na leneen lu mu war a mën a jëriñ te loolu techniciens yi ñoo koy wax mais loolu rek su fekkente ne aboutir na loolu rek doy na bilan pour Kaolack parce que Kaolack dañuy wax ne dëkk bu salte la mais loolu su ñëwee defe naa ne Kaolack dina changer xar kanam mais également soo demee ci électrification bi defe naa ne quartier boo dem ci Kaolack tey madame le maire surtout quartier yu bees yi dugal na fa électrification adduction d'eau bi également ñu ngi koy def ci quartier yu bees yëpp di fexe ba ñoom aussi ñu mën a am ndox pour seen pour seen dëkkuwaay su assainissement liquide bi également état bi mu ngi jàppale commune bi projet bi normalement suñ ko lancé defe naa ne problème inondation dina jeex ci ci Kaolack te ñëw euh, euh, comment dirais-je ay problème administratif moo tax ba léegi waaj a démarré mais normalement heure bi waroon fekk mu démarré mais dañ ne au plus tard deuxième semestre 2018 waa ji war na démarrer kon ñu am yaakaar ne peut-être si déwén vraiment Kaolack dina changé xar kanam ba ba nga xam ni ñëpp nañ xam ne madame le maire moom aussi su yàlla defee mu toog fi ba bu mu jóge fi dina am lu mu teg ci loxo ki nga xam ni mooy topp ci moom incha xibaar bi ca bitim réew muy Vincent Bolloré moom nag ma nga ca garda wi euh, kon yoon daal ma ngi ko euh, téyendi rek euh, moom moomee nag ñu njoxti ni daal dafa laaleek wàllug ger ger goo xamante ne jëm na ci yorin yu port bu Conakry ak Lomé ñu ne nag groupe mbobe moom moo yore yooyu port nag ñu gis ni ab ger am na ca Chérif Dia moo ci dikkat ak ñun. garde à vue bu Vincent Bolloré tàmbali ci talaata ji ci suba ca Nanterre li waral loolu nag mooy enquêteurs yi dañoo bëgg xam rek li ni enquête fan lay mujj rawatina li njort ne moom groupe Bolloré boobu seen loxo génn ci ji ay soupçon de corruption njort ci wàllu corruption. loolu nag euh, mi ngi gën a soxal lekk ñaari port yoo xamante ni mag nañ trop ci Afrique muy bu Lomé bu Togo ak bu Conakry fële ca Guinée. ndem sax groupe Bolloré moom génn nañ benn communiqué demantir ne seen loxo musul laal ci mbiram guerre ak yu ni mel lépp luñ mës a def ci wàll woowu dafa leer nañ rawatina seen société bu siiw bii di SDV ñoom nee nañ amul benn irrégularité boo xamante ni def na ko. ci jamono jooju sax yàggul dara ñoom groupe Bolloré génn nañ seen chiffre d'affaires boo xamante ni ci atum 2017 lañ ko gagné mu ëpp fukk ak juróom-ñetti milliards ci ay euh, euro enquête bi ñu ngi ko dénk ñaari juge financier di Serge Tournaire ak Aude Burési muy information judiciaire boo xamante daal mbiram soupçon corruption la bu agent public ca étranger ginnaaw bi ñu amalee enquête préliminaire ci weeru juillet ci atum 2012 enquête boobu nag parquet bu Paris ñoom ñoo ko doon def daal di koy dénk ñi nga xamante ne ñooy seen naataango yu nekk ca parquet national financier. ay perquisition amaloon nañ ko ci atum 2016 perquisition yooyu nag am na ay documents yoo xamante ni ñu ngi ko jëlee ca bureau ki nga xamante ni moom mooy euh, Vincent Bolloré nekkoon tamit PDG groupe ba. enquête boobu nag euh, am na ay relation diggante boo xamante ni doxoon na ci diggante Francis Pérez président groupe euh, PFACO ak tamit société bi nga xamante dafa spécialisé ci wàllu hôtellerie ak ki nga xamante ni moom mooy Vincent Bolloré ñu xool na ñoom ñaar ñoo ñu daal euh, amoon nañ sax relation ak Alpha bi mu nekkee candidat laata muy jiite réew mu di Guinée. ci loolu sax après gouvernement Guinée ci lan daal di confier rek gestion port Conakry groupe Bolloré looloo tax nag enquêteurs yi di xool lan moo ko waral. ñuy fàttali nag Bolloré moom taxawaayam ci Afrique rawatina Afrique francophone yaatu na lool ci gestion port yu bari Vincent Bolloré mi ngi judd benn fan ci weeru avril ci atum 1952 ci famille boo xamante ni famille industrielle lan breton. cant ak ngërëm ñeel na la Chérif Dia xëtu njëkk yu yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane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 junniy tracteur ak i machine mbay yeneen mu waral direct info xëy ne kaw gi ñoom pare ne nañu Macky Sall ndax junniy machine valeur fanweer ak ñaari milliards yu mu leen jox di lu président directeur général bu holding Amar Cheikh Amar rafetlu ci yéenekaay bi sàkku na sax ci ndaw ñi ñu jox bopp mbay mi le soleil ne président taxawu gi jëm ci baykat yi li ko waral bokk ci xeex ba bitim réew dootuñu yoral sunu ceeb yéenekaay bu aan xamal ñu ne ci wàllu woowu sax vallée du bu Sénégal ñaar fukki junniy hectares yeneen dinañ ko fa ñoŋal ngiram mbay ci observateur